Assalamualaikum, Baku Senegal. Assalamualaikum département bu Assalamualaikum asalaamaaleykum commune bu cherif Lo ñi ngi nuy ñep ci turu yewi Askan Wi section communale bu cherif Lo tay nak dañu woote won ben point de presse entre responsable pour waxtan ci kaw suñu frère suñu camarade monsieur Madiaw Diop kenn ku ne xam na ni depuis le 10 mars ñu ngi ko placé su mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Thiès ñu ñëwoon nag tey manifester suñu solidarité soutenir ko wan itam suñu mécontentement képp koo xam ni yaa ngi yeewoo Sénégal ak ci bitim réew. point de presse bi nag li tax yaataluñu ko kenn ku ne xam ne ni jamono dafa xat beneen bi ci des itam nit ñi ñu ci yeneen yitte mais li am solo rek mooy responsable waktan. waxtaan wan àdduna majaw mooy kan dayo bi mu am ak lan la doon liggéey ci biir parti Pastef ban taxawaay la am ci communauté bi ak itam yéene bu mu am ci askanu Sénégal xam naa du guddal damay jël kaddu gi jox ko suñu frère Moussa Assar... Chers compatriotes, euh, bonjour à tous. Mon Moussa Assar... Euh, aujourd'hui, dimanche 16 avril 2023, nous voici réunis à Ndiassan au nom de la coalition Yewi Askanui, section commune de Sheriflo. Ici représenté par les partis PASTEF, le parti PUR, le parti PRP, le parti Tahao Sénégal, euh, les familles et proches, mais également des membres de la société civile pour apporter notre soutien total et indéfectible à notre frère et camarade M. Madiao Diop, coordonnateur de la ZPS du département de Tuaon et responsable du parti PASTEF dans la commune de Chériflo. Notre frère Madiao Diop a été arrêté, manu militari depuis le vendredi 10 mars 2023 par des éléments de la division des investigations criminelles et placé en garde à vue 72 heures à la section de recherche de Thiès. Il a par la suite été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Thiès jusqu'au jour d'aujourd'hui. Son dossier est toujours en instruction ce que nous ne comprenons pas, puisque les lenteurs, de telles lenteurs nous interpellent. Nous dénonçons et condamnons cette arrestation inexplicable et injustifiée dont est victime notre frère major Diop. Nous signalons que la place de Madjao n'est pas la prison. Nous exigeons sa libération immédiate et sans condition, car cet honnête citoyen doit retrouver sa famille dans les meilleurs délais. Il n'est ni une menace, ni un délinquant, car ce brillant ingénieur polytechnicien doit gérer sa famille, doit s'occuper de sa carrière. Vous n'avez aucunement le droit de briser, le faire souffrir au prix de son engagement politique et citoyen pour son pays. Nous appelons et prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que M. Madiao Diop n'a fait que user de ses libertés d'expression et de manifestation qui lui garantit la Constitution du Sénégal en son article 8 qui encadre les libertés civiles et politiques du citoyen. Nous exigeons par la même occasion la libération de tous les détenus politiques car notre démocratie ne mérite pas ça. Notre Sénégal ne mérite pas ces clichés abjects qui déshonorent notre démocratie acquise à la suite de longues années de lutte. Face à cette volonté clairement affichée du régime du président Macky Sall, d'avancer désormais à visage découvert dans son entreprise de bâillonner les libertés, la responsabilité individuelle de chaque citoyen est engagée. Rester debout et faire face la coalition Yewi Askanui, section commune de Chériflo, marque sa solidarité et son soutien sans faille aux frères Major Diop et à l'ensemble des détenus politiques et réitère son appel à la détermination pour que la préservation de la démocratie et de l'état de droit soit respectée dans ce Sénégal merci beaucoup. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara di leen remercier aussi ci teewaay bi euh, bon man maa ngi tudd Cheikh Amdi Kébé nekk responsable PASTEF euh, ci Chérif Lo nekk aussi membre dans la coalition Yewwi Askan Wi. voilà comme li suñu frère Moussa wax rek euh, moom la ñuy jéem tënk rek de façon ramassée ci wolof ndax Madiaw dafa nekkoon membre ci suñu coalition muy coalition Yewwi Askan Wi nekk en même temps responsable politique ci parti bi ñuy wax PASTEF parce que moom moo jiitee cellule u Chérif Lo nekk en même temps aussi coordinateur u GPS départemental Pastef Tivaouane maanaam moo jiite ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk euh, entre euh, mën naa ni dix ans ba trente ans wala trente cinq ans moom mu jiite leen kon jàpp naa ni loolu responsable bu bu bu kawe la. tey nag dogal ñu japp ko comme ni suñu frère waxee depuis le 10 euh, mars ñu def ko sous mandat de dépôt japp ko jappine bo xamanteni wax deug yalla ñun ñep dañ koy ñaawlu ta japp nañ ni. benn toor rek la am mooy nekk un responsable politique ci parti bi ñuy wax PASTEF waaye aussi nekk tamit ndaw loo xamante ni dafa fare woon ci ku kujeeg politique gi amoon ci taxawaay bu mat sëkk nag ndax bu ñu fàttalikoo rek ci élection yi mujjee jàll nga xam ni dañ ci demoon ak la coalition Yewwi Askan Wi te ay parti politique yu mag yu am doole yu ñu ràññee ci commune bi mën naa ni boole woon seen i doole ku ci mel ni le PUR bu Serigne Moustapha Sy ku ci mel ni Taxawu Sénégal ku ci mel ni PRP bu Déthié nga xam ni suñu frère Moussa moo ko fi teewal ak le parti passif bu Ousmane Sonko yaakaar naa ñoo dajale woon seen i force dem ci élection yooyu te biñ ko defee tamit gis nañ résultat bi nga xamante ni moom la ñu indil tey te résultat boobu ñu am tamit Madiaw daf ci nekkoon koo xamante ni ku ñu ràññee won woon ci ci liggéey boobu ñu jàpp ni loolu rek peut-être moo tax ñu jàpp ko tey téye ko euh, ci jàppin boo xamante ni ñun ñëpp dañ koy ñaawlu parce que dañ ko fekk fi muy liggéeyee man mën naa ne sax dañ ko kidnappé ñu jëlee ko foofu andi ko au niveau de la section de recherche bu Thiès Euh, téye ko fa ñetti fan ba ñeenti fan ci garde à vue bañ ko fa jëlee nag ñu placé ko sous mandat de dépôt ba léegi mën naa ni dossier bi mi ngi nekk ci instruction ak léegi amul benn avancé bu ci am te ñun dem nañ fa la coalition récemment rek le mardi dem nañ fa avec les responsables ñun ñëpp ñoo fa àndoon coalition bi ñëpp kenn desul bi ñu fa demee tamit vraiment euh, gis nañ sëñ Diop mu nekk nit ku dal aussi Madiaw comme niñ ko gën a xamee ci sëñ Diop Taysir ndax yàpp naa ne ñu bari tur boobu lañ miin ci moom mu nekk nit ku dal nekk nit ku gëm yàlla nekk nit ku si koo xam ne ku nangu wax dëgg yàlla ndogal bi dal ci kawam la. parce message bi mu jox ñun ñëpp mooy bu ngeen demee yéen àggale leen liggéey bi nga xamante ne ñun tàmbali woon nañ ko ñun moom fi ñu nekk ñun one est à l'aise parce que quitté nañ ak suñu conscience ndax xam na ni defuñu lu ñu fi indi yaakaar naa moom sax moo ñu gën a dal te ni ma ko waxee noonu la ko waxee ñoom responsable yi fi teew yëpp kon yaakaar naa euh, loolu tamit dafay nekk lu ñu ñaawlu ndax dañ ko jàpp jàpp boo xamante ni jàpp nañ ni tegul ci ci yoon ndax euh, ci marche bu ñu organisé woon au niveau du département de Tivaouane yaakaar naa ci marche boobu la ñu sukkandiku ñoom téye ko ne dafa wax loo xamante ni euh, waru ko wax maanaam appel à l'insurrection wala euh, menace à l'ordre public te loolu jàpp nañ ni bépp opposant politique bu ñu bëgg a galgal rek wala ñu bëgg laa téye rek yaakaar naa motif yooyu moom lañ lay collé pour jàpp la mais Madiaw koo gis xam ni du délinquant du nitu fitna ñun ñu ko xam màgg ak moom yaroo ak moom xam na ni nitu jàmm la nitu diine la nitu liggéeykat la parce que liggéey la gëm liggéey la gëm mooy père de famille la liggéey la parce que soutien aussi de famille la yaakaar naa euh, moom sax moom la famille yaakaar kon jàpp naa ne ku mel noonu nga xam ni dafa li bootu ci ginnaawam dafa bari mu nekk liggéeykat nekk ci entreprise dafa liggéey pratiquement bokk ci ñu koy piloté bokk cerveau serveur nekk ingénieur comme ni ko Moussa waxee polytechnicien yaakaar naa ku ne ràññeeku ci ci liggéey bi muy liggéey ci bërëb ba mu nekk kon jàpp na ni place am tey du kaso mais place am mooy. ci kanamu njabootam parce que dafa yor soxna am ñaari tuut tànk ñu doon ay xale yu ndaw yàlla dogal ko ñu téye ko ci téye boo xamante ni teguwul fenn kon place moom pour man du kaso waaye mooy biir këram mu uuf njabootam place am aussi mooy bërëbu liggéeyukaayam ba nga xamante ni wax dëgg yàlla fa lay fa lay fa lay amee li muy suturlawoo ndax Madiame aussi nekkul politicien comme ñun ñii ñëpp ñun ñu toog nii ñëpp ku ci nekk yàlla dogal nañu wax dëgg yàlla ñun duñu ay politicien de profession yaakaar naa politique engagement rek ak bëgg a jàppale suñu askan moo ci dugal mm. Madiame it peut-être loolu moo ko ci dugal kon tey ku mel noonu suñu ko amee mu am dayoo boobu nekk jàmbaar nekk liggéeykat nekk nit ku am valeur nekk nit ku jub nekk julit pire wax dëgg yàlla ñëpp ràññee tamit ci ci ci wàllu mel noonu kon jàpp naa ni tey palaasam nekkul kaso mais palaasam mooy ñu bàyyi ko mu dem ci njabootam nekk ci liggéeyam parce que loolu Madiaw ku mel ni Madiaw loolu la Sénégal di xaar ci moom. Hmm. mais gis nañ ni ku mel ni Madiaw ku mel ni Alioune Badara Mboup ku mel ni le député Massata ak ñëpp ñoo xamante ne tey leen jàpp de façon arbitraire te ñëpp xam na ni maanaam politique moo tax ñu téye leen. ñëpp xam nañ ni ñooñu tey seen place nekkul ci kaso mais seen place mooy ñu bàyyi leen ñu nekk seen njaboot nekk seen liggéey

ñenn ñi jàpp nañu ni ça n'a rien à voir ak lu jëm ci wàllu politique politique bobu ngay def allusion est-ce que da nga bëgg a dellu siwaat ci élection yi nga xamanteni mom mo fi génn te buñu ñu parti au pouvoir bi fi nekk daf ko ñàkk Tivaouane département bi dem en faveur euh, de l'opposition dem en faveur de Yewwi Askan bi est-ce que da nga bokk ci li nga xamni dañu jàpp ni li dafa nekk ben tentative de déstabilisation euh, Yémi au niveau départemental waaw effectivement xam nga loolu moom yaakaar naa bu ñu ko laajoon xale bi gën a ndaw sax daf lay wax ni la tendance yi ñoo commencé renversé wu parce que nit ñi dañoo commencé jël conscience gis nga département Tivaouane dafa rëcc Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar jóge na ci seeni loxo bu fekkee dëgër lañ bëgg a waxante département Tivaouane mi ngi ci loxoy coalition Yewwi Askan Wi te loolu élection yi ñu mujjee génn wane na ko dañ leen fi gagné largement man jàpp naa nag défaite boobu sax moom lañ mënul digérer ba léegi loolu mo indi arrestation yi bi am parce que du majaw rek lañ téye suñu frère Alioune Badara dañ ko téye Bintou samba ak ñeneen ak ñeneen y' a pas mal d'arrestation ta te japp nañ nañu defuñu lu leen arrêté parce que nit wax na lu gëna graw lool wala mu def ko ta day ji mi ngi dox gis nga majaw limu wax ni ñu téye ko bu fekkon dama ko wax man bokk benno bokk yaakaar heure bi ma ngi circuler nu ma kon japp na ni résultat élection yi passé nga xamni dafa wane carrément que le département de Tion a tourné le dos à benno bokk yaakaar war nañ leen ginaaw war nañ ginaaw Macky Sall yaakaar naa loolu moo tax fi mu toll nii képp kuy yëngatu ci politique te fare ci kujee gi soit nga nekk pur wala nga bokk Pastef wala nga bokk feneen jàppal ni à tout moment état moom mi ngi ci say tànk parce que ñun ñëpp dañoo nekk en sursis comme ni ma koy waxee rek ku ci nekk à tout moment mën nañ laa jàpp yóbbu ndax lan faroog Macky Sall ndax réew moom jàpp naa ne fi mu toll nii ñàkk fee ànd ak Macky Sall moom déli la ñun nag bu dee loolu déli déli la ñun moom ci déli boobu ci lañuy dox ndax ànduñu Macky Sall tey ànduñu moom suba te heure bu ñu xëyee tamit ci lu ko fi jëlee ñun ci lañuy dox bu dara amul lan ngeen fas waaw comme dossier bi nag mi ngi ci yoon nekk en instruction parce que tamit ñun dañu nekk ay responsable nekk nit ñu dox ci wàllum yoon ndax ay borom xel lañ lépp lu ñu war ci wàllu justice ñu ngi koy def bu dee jël avocat jël nañ ay avocat ñu ngi topp dossier bi boobaak léegi nag gis na ne avancé wul parce que soriwul ba léegi mi ngi instruction ñu téye ko ba léegi jàkkaarloogul ak procureur te xamuñu lan moo lan moo ko waral ñun mujjee jàpp récemment atte nañ leen ba condamné leen à deux mois de prison ferme te loolu sax dañ koy ñaawlu ndax jàpp naa ne ku mel ni Alioune Badara wala Bintu ak ñi ñu àndal pour man defuñu tax ñu war leen a jàpp di leen tey di leen di leen tëj kaso ci ñaari weer dossier Madiaw nag ba léegi ñoom nanguñ cee wax dara am na nag lu ci làqatu nanguñ cee wax lenn ñun nag dinañ topp procédure normale judiciaire bi maanaam wàllu yoon dinañ ko doxal leneen li ci des nag nga xam ne c'est un combat politique loolu tamit dinañ ko mëne waaw parce que dafa am problème yoo xamante ni c'est des problèmes politiques kon ay réponses politiques ñoo koy ñoo koy ñoo koy lijjanti loolu nag à notre niveau la coalition Yewwi Askan Wi on est très organisé ndax jàpp naa ni parti bu mel ni PUR ak PASTEF ak yeneen parti yi ci bokk ku mel ni PRP ñu organisé wu lañ xam nañ bu baax a baax yan forme de lutte lañ mën a utiliser yu légal yu ñu mën a utiliser ba suñu combat bi ñuy mën a ñu am ci gain de cause moo tax ñu benn combat boo xamante ni combat bu noble la combat bu légal la. département bu Tivaouane bari ay ëttu diine tey ñooñu ban kàddu nga leen waaw comme li frère Moussa wax rek comme Tivaouane dafa am benn dayoo ci wàllu diine ndax boo ne Tivaouane rek sa xel dina dem ci Seydi Hadji Malick waaye boo ne Tivaouane aussi sa xel dina dem ci Ndiassane ñu nekk ay kilifa diine nekk ay responsable ñoom it dañ leen tàllal loxo comme ni ko Moussa waxee ndax jàpp naa ne bu ñu jàppee doomu Chérif Lo wala doomu Tivaouane wala doomu Mboro doomu département Tivaouane la ñu jàpp ndax ñoom ñoo ñu yilif kilifa nag yaakaar naa sa njaboot bu ñu nekkee ci ay ay jafe wala bu leen téyee ñu nekk ci ay jafe dañoo war a sentir kat wax dëgg yàlla sa sa sa ndimbal moo tax nañu leen taalal ñun suñu suñu loxo parce que ñoom ku ci nekk muy Tiwaawan wala muy Njaasaan ñu ngi leen di taalal suñu loxo lépp loo xamante ni jàpp na ni mën nañ ko ci wala mën na soit ay kàddu la wala ay actes yu ñuy def ba suñu frère Madiaw retrouver liberté am delluwaat ci njabootam dellu ci liggéeyam ñu ngi leen taalal loxo yooyu dàquñu kenn nag képp koo xamante ne rek jàpp na ne am nga kàddu te sa kàddu moo gën a kawe suñu bos fa mu mën a àgg suñu faa àgg ñu ngi la koy tàllal di la ñaan nga dox ci ay tànki jàmm dox ci ay tànk yoo xamante ni wax dëgg yàlla suñu frère yi ñu jàpp ñëpp nga xam ne ay détenus politique lañ ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen seen seen njaboot ndax jàpp naa ne loolu mooy li indi jàmm Sénégal loolu aussi mooy li indi jàmm ci département bu Tivaouane ndax bu ñu téyee benn doom doomu doomu doomu bi rek jàpp na ni département bu Tivaouane bi yëpp la ñu téye te téye googu ñu leen téye tamit yaakaar naa nekkul loo xam ne luy indi jàmm la waaye luy créer yi lañ ciy jiital nañu génn wax ndax li wolof di wax rek naan artu moo gën àtte te bu ñu artuwul tamit mën nañoo àtte te ñaanuñu ko yàlla asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziar man la Seynabou Lo jigéenu safe ma àndoon ak Madiaw Diop di ñuy politique yëngu si politique bi ak ñi gis ñoom ci ñi ñëpp rek waaw sëñ Diop nag muy nit ko xamante ni euh, ab taalibe la ab jullit la d'abord jullit la bu ndagu bu nangu dogal waaye tekki nekk taalibe sëriñ Touba doon liggéey liggéey bu am solo yàgg nañu ànd di liggéey man ak moom avant ñuy dugg ci politique bi waaye di liggéey sëriñ Touba ba bes sax fekk nañ li indi sëñ Diop bi turu sëñ Diop bi ma fekk sëñ seydine Mokhtar këru ganda ñu wax ko sëñ job ay ay ni muy sonnee ci daayira be yoyu ak ni mu bëggee sëñ Touba né mu ñu tuddu ñu ko Madiaw mu né a ah, sëñ job ànd suñu way ñaanal ko kon koku yaakaar naa ne bëgg a toroxal itam di nga torox ba ceegu dara kam insha allah rabbi sëñ place am du prison ndax sëñ job dafa nekk nit ku social. ni ko Kébé waxee léegi ni ko am di waxee léegi rek nekk nit koo xamante ni suy jëf du bëgg sax loxo loxo càmmiñam bi yëg ko kon moom yaakaarul sax politique pour dund da cee dugg ngir jaamu yàlla ca man loolu wér na ma leer na ma da cee dugg ngir jaamu yàlla leer na ma naa ñi man ndax li ñu séq moo moo ëpp politique wax dëgg yàlla euh, blessé na Macky Sall li mu def blessé na suñu sentiment ndax ki mu téye moo seer ci ñun ñu sëñ Diop dañ ko xam du nitu ay du nitu fitna nit ku dal la nit ku dal la nit ku ku ku xam yoon nit ku xam dëgg sax da bi ñu àndee di po dañ daan na ko tooñ sax naa ko yow dangaa ragal dangaa tàppe mu ni déedéet man damay bañ a tooñ dafa nekk nit ku xamante ni du tooñ ci ci raay bi rek la bëgg di tege kon ñun ñu jàpp ne ñun ñi xam sëñ Diop yàgg di liggéey ak moom dañoo jàpp ne dañ koo jaay doole jaay doole gi nag mënut a fekk ko fi mu liggéeyee jël ko yóbbu mu am njabootam deful waxul moo tax keroog bi ñu ñëwee ñi ñëwee man leen man naqar laa ci am waaye awma ci gàcca ndax sëñ Diop deful lu bon waxu waxul lu bon dañ ko jaay doole ndax dafa àndul ak Macky la képp koo xamante ni àndul ak Macky nag na la leer ne ba sax ñi mën naa ñëw nga fanaane prison ñun moom ñun pare nañ pour pour fanaane prison fekkente ni ànd ak Macky ñàkk ànd ak Macky la mooy tooñ kon ñun ñoo ngi ci tooñ ndax ñun du ànd ak moom tey ba suba ndax ni muy doxee neexuñu xanaa loolu ku ne am nga si droit loolu nag ki la Madior nekkoon ñu arrêté ko kon kon ñun ñun ñi ci des kon nañ pare pour fanaane prison waaye sëñ Diop ma koy may xamal Macky Sall ni téye na koo xamante nii gor téye na gor wàcc sàmba boy ci àll ñu taxawaal wàcc sa wàcc jëlkati àll jàmm ñu taxawaal sëñ Diop ñun ñi juddoo doon moom yaroon doon moom Chérif kenn mës koo gis ci lu doyati wala ñu ñàkk fayda wala loona accam kenn mësu ko cee gis ñoo fa juddoo ñoo yaroondoo doo Lo muy jàmbaar lool ci liggéey Serigne Touba bi mm-hmm. moom dafa nekk nit ko xamante ni lu mu xas dugg rek jël dugg na ci waaye tamit ci yoon rek la mooy la ciy doxee du déraper benn yoon kooku mooy sëñ Diop. maa ngi tudd Thierno Gueye secrétaire général du PUR au de la section de Chérif Lo en même temps membre de la coalition Yewwi Askan Wi. je pense que ni jaratul ñuy guddal parce que li ma doon wax yépp camarade di ñuy jitu wax nañu ko li am solo moy japp nañ ni message bi dugg na ci nopp ñi nga xamni ñu war nañ ko dégg beneen ci des rek may préciser que ni Madiaw Diop aussi il est conseiller municipal à la mairie de Chérif on lance un appel aussi à la mairie de Chérif Lo un conseil municipal mom lañu arrêter té ñom tam war nañu manifester sen solidarité benen bi ci des je pense que nous ñi dit wax nañu ko par rapport ak attitude du madjaw maa ngi wax kérok ko arrêté Mani ni day détention bi dina ko permettre mu reposer neexul dégg lu tax mu wax ko moy ko xamni c'est un homme de terrain sur le plan politique à travers les réseaux sociaux chaque jour ñi ngi gis mu dans le département de Tivaouane au plus profond du département de installer ay sections de installer aussi ay cellules sur le plan religieux kenn ku ne xam ne ni Jóob Taysiir lañ koy wowe manam min na ay kuréel temps mi daf ko consacrer ci ay daayira beneen bi ci des mu nekk un être social koo xam ni lu mu am bokk na ko doomu aadama yi kon mbokk yi li ñu wax place majaw du prison ndax nit la koo xam ni il est utile à sa société jàpp nañu nag autorité nga xam ni war nañ ko dégg dégg nañ message bi on lance un appel surtout au procureur qui est le maître de poursuite mbokk yi wax nañ ni dossier bi mi ngi en instruction duñu ci dugg mais bëgg nañu ñu diligenter le dossier ñu juger ko buñ ko mënul libérer ñu juger ko mu delluwaat ci ay njabootam delluwaat ci liggéeyam beneen bi ci des ci dayo bi nga xam ni Madiaw am na ko kenn ku ne xam na ni parti Pastef am na ay kuréel yu bëree bëree bëri tey jii boo demee ci cadre yi Madiaw Diop bokk na ci ñi nga xam ne ñooy informaticiens yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyu Pastef nekk koo xam ni patriote la parce que patriotisme motax fepp fu askani wote woote Madiaw mi ngi fa xaj na leneen li ci dess par rapport ak attitude bi nga xamni war nañ ko manam pour mener le combat bi c'est un premier pas mais li mbokk Cheikh Amdi Kébé wax dañ ko bëgg a bàyyiloo ñëpp xel nous sommes des gens responsables kon suñu action yépp dañ koy souscrire dans la légalité mais aussi dans la responsabilité comme réew mi nag matte moo fi xew olof dañuy wax ne ku dul matte del signe ba ñu xam ne am ngay bëñ après la Korité bu fekkente ni amaatul beneen jéego bu def pour diligenter son dossier nous allons à la vitesse supérieure dinañ mobiliser toute la commune de Chérif Lo parce que dañu ne woon tey na responsable dajé ñu waxtaan ñepp xam tayo bi nga xamni majo Madiaw am na ko bu ci Korité bu fekkente ni taxawaay amul bu jëm ci diligenter dossier ñun on va prendre le taureau par les cornes lepp lu mu laaj dinañ ko def lepp lu dellu ci walu légalité mais surtout responsabilité benen bi ci dess dañuy remercier mbokk yi